ki ñu ngi leen di nuyu di leen ziara te di leen baal ak di leen baal ak di ñaan yalla suñu borom bu leen jéggal di ñaanal sëriñ bi yalla yàggal ko fi te wéral ko barke alquran fas yéene ñëwaat ci yu tafsir bi tey ñu fas yéene mottali suratul zariyaat yi kon jataayu tey bi takk mi la lay doon ci suratu zariyaat dembu ñu gisoon gan ibrahima ya ña nga xam ne ñëwoon nañ ngir alag si nitu yonent yàlla lóot ya nga xam ne ñaawteef wañ dikkee woon amul ku leen ci jiitu ci àdduna ñoo ko njëkk a def maa sabaqakum biha min ahadin min al alamina amul kenn ku leen ko njëkk a def ci doomu aadama yi muy at liwaat góor ak góor di sëy démb gisoon nañ fan la malaika yi jaar ak ñom gan ñu doon malaika yi fan lañ jaar ak nitu yenente yalla luut ya yàlla it nettali woon nañu ci liñ gis démb moy histoire musa ak fir'auna ba fir'auna mbolo ma jay ko ba tax mu baña a gëm Moussa wala baña a gëm li musa indi tamay l'islam fa yalla jaar ak mom labal ko ci géej ga nañu it ci ay gis démb aat ba yàlla yónnee ci ñoom huut ñu bañ koo nangul na leen yàlla mbugalee ca ngelaw lam leen yónnee woon waa samu it waa samut ba yàlla yónnee ci ñoom saalix ah mu tere leen ne bu laal giléem gi ñu rey ko weddi ko ñoom it démb ay yiñ gis nettali nañu fa yàlla jaar ak ñoom legi nak tay ba niki non yit nitu yonent yalla nooh ya mm. dem bit ay gis gis nañ ci fa yalla jaar ak ñom yalla nooh dañ ko bañe bañ ko bañ ko bañe gëm mm. yalla bimu paré ci lool nak ay ci top day ñew di leeral kàttanug yalla mm. mbir yo xamne bo xolé rek sa ba tege ci te lépp day tegtale katan gi yalla am ak yalla nek gi nek di di kenn sunu borom mu ni wasamaa asamaan banay na tabax nañ ko bi din ci kàttan nee na ñoo tabax asamaan ci sunu kàttan tabax ko mu nekk tabax bu dëgër ñu xereñee ak tabaxam فلم ينظروا إلى السماء كيف بنيناها كيف بنيناها وزيناها ما لها من فروج نيو كاي واخي رك امول بن سيك بو تي غيس تاي سوف سي بودون كير لا تيك بيكو تيم موي دال بيكو تيم موي اسمان سي كوم بو ني جاكا جي تاي في ني توك تيك بي ني تيم موي دال بي تيم ني اب دال نك لي لي ني غيس سي لو خامني مانس مانس نكو تي سيكل wa yalla mom lim teggale souci mais asaman si benn sikk bu ci am loolu nag ci kàttanam la ko defee loolu lépp day tegtale kàttanu yàlla ak nekk gi nekk di kenn ndax amul kenn ku ko mën nag waaw Cheikh Moussa naan ku ku tàllul suuf si taawul asamaan si loolu day day firnde kenn doo nga tàllul suuf si kenn doo nga taawu asamaan si tamoo yàlla loolu mi ngi tegtale laa mooy yàlla nekk gi nekk kenn ak kàttanam mu ne wasamaa asamaan banay naa tabax nañ ko bi ay yëg ci kàttan wa inna te ñun yàlla de la muusiuuna way yaatal lañ ko mm. asamaan lañ ko yaatal lool mm. eh, asamaan moo ëpp suuf mm. moo ëpp suuf ay milliards yi yoon moom asamaan ba defee loolu bokk na ci li koy tekkale nee nañ benn biddiw rek ci biddiw yoo xam ne ñoo ëpp suuf si am na ci biddiw yi yoo xam ne ñoo gën a rëy suuf si foofu te asamaan mu ngi yenu biddiw yooyu kon bu fekkoon ne asamaan ak suuf dañoo tolloo comme que biddiw moo ëpp suuf kon biddiw yooyu bu ñu nekkee ci kaw asamaan si dañuy muur asamaan si waaye guddi bu jotee boo téenee ci kaw asamaan da ngay séen biddiw yi ci kaw ci kaw asamaan si ko na ci li tegtale ba tey ñu ne asamaan moo ëpp suuf mooy ñaari sunu borom fu muy tuddee asamaan ak suuf sama samaawaati lay wax asamaan yi da koy jamono mooy pluriel la koy def walaar di mu def ko singulier benn ak suuf si ba pare asamaan lay njëkk a tudd doog teg suuf ñu loolu tegtal la ne asamaan moo ëpp suuf jayit kon wa innaa la muusiuna ñu yaatal ñu yaatal asamaan ndax suuf ak li ko wër suuf ak li nekk ci suuf moo xam jaww moo xam jéeri ji ñu nekk la moo xam ndox mi ci biir suuf la muy géej gi buñ ko tëkkaleeg asamaan dafay mel ni benn cercle bu ndaw boo dem ba ca àll ba nga rëdd ko fa te nga nga dem ba ca àll bu yaatu ba nga def nii benn rëdd loolu na muy tuutee ca àll ba nee na suuf seeg li ci biiram noonu la toll doye boobu la am ci buñ ko lëkkalee ak ak asamaan si dégg nga ibnu abbas mu ni la muusioona sunu borom mi ngi ci jublu mooy la xaadiruuna min al wasi bi maana attaaqa tukkee ci euh, wason bi firi kàttan nee na inna ñun yàlla la muusiuna way am kàttan lañ ñoo tabax asamaan te fekk ci kàttan te ñun yàlla bi ñu koy def ñi ngi am kàttan Ibnu Abbas nee na loolu lay tekkee waaye jubluwuñ ci asamaan yaatu gi mu gën a yaatu suuf loolu déggin la wa innaata ñun yàlla la muusioona ñuy way yaatal suuf wala wa innaata ñun yàlla la muusioona ñuy way am gàttal mu ne walaar da suuf it faras nañ ko ñu yalla ñoo talal suuf ñu ñoo lal suuf talal leen ko mu deugar kecc ngir ngeen mën ci sax ñu lalal leen ko talal leen ko ngir ngeen mën ci jeriñu ci naka tay yoon yi ñi jaar di dem di tukki ci suuf yoy ñu ci jeriñu ndax ku juk bëgg dem faaw nga am yoon wo jaar léegi yoon woowu jaar gi nga ciy jaar loolu njëriñ la ci yow waaw tey dëkk yi amul yoon sax dañuy jàmb ne nañ leen defaral yoon fa amul yoon dañ naan foofu dafa jafe dafa dem gis dëkk yi ndox wër sa pour dem fa day jafe nga xam ne ay île la ak yooyu maanaam dëkk yi nga xam ne maanaam suuf dugg moo gën a yomba dem dëkk yi nga xam ne ndox ko wër ndax am na dëkk yoo xam ne tey ñaar dugg ndax amul yoon suuf bu oto di jaar te foo dem fu mel ni Gorée ne salop ngay dugg rek jàll yow nit dana jàll waaye oto fa jàll waaw kon bu ko defee loolu bu doon ne suufa fa dem nag kon ci la yoon bu fay dem gën a gën a jàppande kon suuf si ñu ngi ciy jëriñu ci ay yoon mm-hmm. ñu ngi ciy jëriñu it ci xeetu mbay ndax gisaguñ fenn fu ñu bayee fu dul suuf ci suuf la ñuy bay waaw te mbay li ci ëmb ci ay njëriñ ndax économie bi gën a mag am li gën a rëy ci liy joxe koom-koom ci àdduna mooy mbay mm-hmm. waaw dëkk yi gën mag ci àdduna seen ëpp koom-koom maanaam seen koom-koom yi gën a mag mooy mbay te ci yi ñuy wax ay pétrole ak ay gaz ak yooyu yëpp ci suuf lay génnee waaw kon suuf ñu ngi ciy jëriñu bu baax a baax kon yàlla moo ñu defal suuf ngir ñu ciy jëriñu te loolu lépp nag dàquwante wut ak suuf nekk gim nekk di kurawiya kurawiya muy suuf dafa ron ko mbal kurawiya suuf ka kurra dafa mel ni kibal suuf noonu la mel dafa mel ni ki bal te li muy mel ni bal yëpp ñun dañuy yëg ne suuf si lu tàlli la montagne yi nekk ci jànj yi nekk ci am côté yoo xam ne joor lay doon am foo xam ne dafay tàlli ñu tabax fa ay kër dëkk fa te loolu lépp teewul suuf dafa ron kon loolu yéeme na ndax suuf dafa ron fi ne ni ron googu mu ron ron mooy wër wër gi muy wër moom suuf fu mu demee ba tolloog jant bi ñooñu nekk ci bëccëg bu leen rombee ñu nekk ci guddi ñu ni jant bi sona waaye teewul ndax jant bi mën na bu soowee ci ñun ña ñu jiitu wala ñoo xam ne ñun ñoo leen jiitu est jant bi sona ci ñoom kon fekkoon soro mooy dafay làqu dem dugg dem dem feneen waaye fi mu nekkoon ma nga fa ba léegi jugu fa waaye suuf see wër rek fu mu tolloog jant bi rek ñoo ñu nekk ci bëccëg fu mu leen rombee ñoo ñu nekk ci guddi te loolu lépp taxul ñu yëg ne ñun dañeen dem ba juutu tay suuf si dana wër dem ba won jant bi ginaaw te ñun dañuy yëg ni ñu nekkee rek lañ nekkee woon duñ dem ba yëg ne dañu suñ bop yi day fété suuf suñ tanki fété kaw te tay lo jëlon def ko ci dara diko windel so soo ni da ngay gis ne da fay mujj juutu kon lolu kéemaan la kon yépp ay tektal la yi tektalé kàttanu yalla ak ak ak ak nekk gi nekk di kenn Muni ne wala arda suuf farasna ha talal nañ ko mu fa neex ma de kon al mahiduna way talal nee na kon dañuy tàllal suuf ak njëriñ yi nekk ci suuf doomu aadama yi di ci si jëriñoo ñu ñi ko def ñooñu ñu baax lañ ñu màgg lañ ñi ko def ñan la kenn la mooy yàlla kon mi ngi wax ñi ko def ngir màggal boppam nga tax mu koy def mbooloo waaye moom kepp la bokk na ci tegtale kéemaanu yàlla ba tey mu ne min kulli shay'in lépp lëf mooy bépp mbir xalax naa bind nañ ci zawjayni ñaari peer lu ne rek yàlla ñaari xeet la ci bind lo gis rek yalla ñaari façon la ci def goor ak jigen guddi ak beccëk lu neex ak lu kon ki def lolo nga mo am kàttanuk lum indi rek indil nako ko lum lu indi rek lo tud rek lo xala lu sa xel daj rek am lu safaan ak moom waaw rek kon ki wax ko fa ni'ma almaahiduuna way tàllal yi mooy ñi nga xam ne ñoo tàllal suuf si ñoo ko lal yàlla nee na ñooñu baax nañ de mi ngi ci jublu nag boppam li tax mu jamoo ko nag day màggal boppam moom yàlla dégg nga day màggal boppam wasiqatul jame li taazim tëggu jamoo gi yàlla day màggal boppam mu doo min kulli lépp la xalax naa bind nañ ci zawjay nii ñaari ñaari peer walla ñaari xeet ñaari façon lu ne rek ñaari ñaari xeet la ci def waaw it day tegtale kàttanu yàlla am na loo xalaat rek <coughs> ku dof ku wér ku muusadi ku muus ku ñaaw ku rafet ku gàtt ku njool ku xees ku ñuul am loo xalaat rek yàlla ñaar la ci def min kulli shay'in xalaqnaa zawjayni te lu tax yàlla def ko laalakum amaana yéen na di ngeen waaru ci loolu yàlla daa bëgg ndax loolu loolu lu mat a lu mat a waaru la di lu mat a waaroo la loolu lu mat a waaroo la lolou màggaayu yalla gi rek momen man ya yalla da bëgg ci lolou ngir ñu waaroo ci tax ñu gëm ko ñu xamne ne def lolou nga xamne ne lu mu def rek wutal nako peer ñu xamne ne kooku ku màgg la ku jara gëm la dégg yalla mu ne nak fa firo dawlen ila allah jëm ci yalla muy wëru ju len waxu len a'ra'u ila ila waxu len jëm ci wéetal yalla wa taatihi ak top ko dawlen jëm ci yalla abu xayaan mu ni yàlla bu diglee daw leen daw leen jëm ci yàlla am dañuy digal ñu dem ak duxulu fil iman wa taati rahman mooy dem dugg ci gëm yàlla mooy dem mooy ñu gëmi yàlla rek te topp ko moom yàlla waaye baatu firaar gi daw gi day tekki ne nit ki ci ginnaawam mbugal moo fa nekk léegi mbugal moomu ngay daw nag boo koy daw fan nga ko mën a rëccee ji mooy ci ci yàlla kon daw gi mooy daw leen mbugalum yàlla dem jëm ci topp jëm ci topp yàlla dafa mel ni yow mbugal moo nekk sa ginnaaw mbugal mi dalaa bëgg a dab pour nga rëcc ko nag mooy da ngay daw jëm ci topp topp yàlla kon daw leen jëm ci yàlla mooy dafa mel ni ginnaaw nit ñi mbugal da caa nekk dégg nga kon baat bi dafa mel ni dafay boole ñaar bay na tahzir wala istidaa ñu ngi lay dawloo mbugalum yàlla di la woo nga jëm ci ci topp yàlla kon fa firu ilallahi loolu lay tekki mi ngi mel ni li yéen saa wax nag laa mal maljaa wala manjaa minka illaa ilayka wéeruwaay amul te muccuwaay ci mbugalum yàlla amul lu dul ci ci yàlla kon boo bëggee mucc ci mbugalum yàlla dangay daw mbugal mbugal nag yaa ngi koy dawee ci bàyyi mooy eh, dégg nga jëm ci yàlla mooy jëm ci topp ci topp yàlla mu ne inni naka man de nazirun waaraatekat laa lakkum ñeel leen minu bu tukkee ci yàlla man nag damaa ñëw ngir waar leen mooy ngir xëpp leen te ci yàlla laa jóge dégg nga dégg nga damaa ñëw ngir xëpp leen wattandikuloo leen mbugalum yàlla ma ragal loo leen ak mbugalam te nazirun waaw xëppaatekat laa nag mu biinun bu bir man waaraatekat bu leer laa xam ne samay mbir lépp leer te yàlla leeral na ko ci dëgëralee dëgëralee ma ay mujisaat yent bi def na ay mujisaat ba tàyyi ngir wan ko yéeféeru màkka yi yu war a tax ñu gëm ko lu ne def loon nañ ko ko mu def ko mbëtt mu wax ak dégg nga garab bu dox ak mm. ah, xaaj weer wi ñaari xaaj ak mm. loolu lépp yenent bi def na ko ak yeneen ak yeneen yu baree baree baree mm. baree baree bare dégg nga waaw comme mooy mu mubinun waaye nag yàlla mu ni walaa tajalo bu leen bokkaalee ma allaahi ànd ak yàlla ilaahan buur aaxar beneen yàlla mu ni bu leen bokkaaleeg yàlla leneen bu leen bokkaaleeg yàlla kenn moo xam mbindéef mo xam aw doj la bu len jël len di ko jaamu ma ngi am pass pass ne da len a meuna a ci len lol bu ngeen ko defé rek yene ngi bokal ak yalla mo xam mindeef la mo xam jamaat la ngeen am pass pass ne da ngeen koy jaam war ngeen am pass pass ne lii war na meuna mën len dedet ad durru wa nafu min ar rahmani laysa min al bidani wa sudani loolu seigne touba wax ah, am eh, denga am loolu njëriñ lolou yalla ya moko yore waaye jógewul ci ku ñuul wala ku weex waaw kon la tajalu ma la ilaha axara maam bu leen am benn pas-pas ci lenn jàpp ne war nañ na jëriñ wala war nañ na lor lu dul yàlla lu yàlla dong ko man dégg mu tegaat ci ne inni naka man nazirun waaraatekat la mu biinun bu bér lakum ñeel leen minu tukkee ci yàlla gis baamu wax ji waxoon na fa inni lakum minu nazirun biin waxaat na ko ngir gën koo feddali ak yee ñi muy waxal ci danse gi nekk ci bokkaale yàlla danger gi nekk ci bokkaale yàlla moo tax mu leen di mu leen di eh, baamuwaat wax ji ne ah man de maa ngi ñëwaat di leen avertiraat borom damaa yebal ngir ma ñëw avertir ngeen moytu bokkaale ngeen moytu bokkaale yàlla bu njëkk ba dafa digle ne nañ topp yàlla dal di wax ne inni lakum min nadhirun nabin fa firu ila allah lim digle moy nagn topu yàlla da di wax ne inni lakum min nadhirun nabin wat ndiko ñu ñu bokal yàlla la tajalo ma la ilaan akhara dal di wax ne inni lakum minhu nadhirun mubin dégg bu ko defee loolu day xamal nit ki ne ko anna al iman la yanfau illa ma al amal xam gëm yàlla du jëriñ nit ki lu dul da koo jëfee waaw da koy fas ci xol jëfee ko si si cër ni nga xamee ne it jëf du jëriñ illa maa imaan yi nit ki it buy jëf rek def lépp lu nit ñi def mu koy def te fekk ci xolam fasu ca gëm yàlla loolu ak nifaax lay doon yàlla du ko jëriñ dara comme moo tax mu digle topp yàlla moytandikuloo euh, bokkaale yàlla ñaar yëpp mu teg ci ne inni lakum minhu nazirun mu ni kazalika ni ki noonu maa ataa dikkalut allazina ña nga xam ne min qablihim njëkk nañ yéeferu màkk yi min rasulin ci ndaw ilaa xaalu lu dul waxoon nañ ñoom ñooña saaxirun jabarkat la aw majnun wala dof la yàlla mu ni yéen saa salaam maanaam sa xel na dal lii bu mu la naqar yi liñ naan la saaxir nga wala majnun nga mooy njabarkat nga wala dof nga bu mu la naqar yi ndax amul benn yenent bu mas a ñëw dikkal ña jiitu woon mooy weddikat ya jiitu woon ñii waa màkk yi am na weddikat yu leen jiitu woon al mukazibuun al awwaluun lu mel ni xaw mu aad lu mel ni xaw mu uud xaw mu huut ak ñeneen ak ñeneen xaw mu nuux ñoo ñëpp amul yenent bu mas a ci ñoom lu dul dañu ko wax ne ko njabarkat nga walla wala dof nga kon bu mu la naqari njëkkuñ la ko wax yéen bu ñu mas a yónni rek ñu leen fi jiitu woon ñoom it loolu lañ leen wax dégg nga dégg nga dégg nga mu ni kazalika ni ki noonu maa ña nga xam ne min xablihim njëkkoon nañ yéefaru màkk yi min rasulin ci ndaw amul ndaw lu leen mës a dikkal ñoom ñooñu ñoom yé maam weddikat yee jiitoon yéefaru màkk yi amul ndaw lu leen mës a dikkal illa khawlu ludur wax nañ ko sahirun jabar la aw majnun wala dof la kon lolu bum la nakari kon nak yooyu Muhammad lolu bum la nakari yalla mu ne atawasaw ndax dañu denkante bi ci lola est-ce ne maam yefer yu njëkk ye ñoo wax yefer yi ne len Muhammad bu ñewé weddi len ko wax ko ne ko kan nga wax ko ne ko wax ko ne ko dof nga est-ce ne dañ denkante yalla da fay laaj waye laaj bi da fay yéem rek ci depo gi am ci digënté yéeféer yu ya ak yéeféeru màkk yi waaw ñooñu nañ weddee woon seen yénenté ak lañ leen doon wax ak ñi timi ni ñu Muhammad ak lañ koy wax nim nekké ben benn mm. ñëpp sahir majnun rek lañ wax kat nga dof nga dégg mm. motax yalla di laaj laaju laaju yému way xamna né lolu amut mm. waaye kaddu gu ñaaw gi ñi wax yeneen yi niñ ci depo ñoom ñëpp ta yalla def li ñu wax idrab mu ni bal li fi nekk sa hum ñom xaw mun aw nit lañ taaxoo nañu beew dénkante wuñ ko de yëgoo wuñ sax waaw dañoo bokk bon rek waaw ñu bokk bon nag ñoo bokk lu ñuy wax rek ñee ñu bon lañ woon ñu beew lañ woon ñu bon ñii tamit nekk ñu beew ñu bon rek moo tax la ñuy waxoon rek la ñuy di wax ndax ñu bon ñëpp ñoo bokk ñoo bokk lu ñuy lu ñuy def ak lu ñuy wax mu ne ba li fi nekk xum ñoom kon xaw mun aw nit lañ taaxoo nañu beew waaye nekkul na ñee dañoo denk ñii ne leen Muhammad Muhammad ñëwee neen ko wax lii de waaye mbeewte ma jañoon ñële ci weddi seen yeneen ya ak mooy leen mbéwte mom ak mbon googu moo jañ ñii ñu weddi seen yeneen yi eh, mooy leen moo tax la ñee waxoon ñamit ñu wax ko rek njabarkat la ab dof la waaye li mën a xew mooy fa na nga dum an walis leen wax ak bi dum dum anta yow bi ngay ku yedd yow sa jaan bu ñu la waxee njabarkan nga waxoo dëgg ab dof nga gëmuñ li nga woote yow sa jaan wàcc na ndax li annaka xat balaxta risaala wa addaytal amaana yow mission bi joxe nga ko ba mat kóllëre gi nga séqoon ak sa borom ne li la yàlla yónni di nga ko di ko matale dëgg-dëgg matal nga ko te wa bazaltal juhda fi nusi wal irsaat yulli nga laaxa biir mooy joxe nga eh, effort bu bare bari joxe nga force bu bare bëri effort bu bare bëri ci laaxa biir ngay laaxa biir nit ñi ak orienté gi nga leen di orienté waaw kon yow sa jaan wàcc na kon fa ma ant déel yow bi man min ngay ku ngay ku yedd yow amoo dégg nga te wa ada rasul ilal balaax yow jotale rek moo la warta ta jotal nga yàlla mu ni ko wa zakkir na nga fàttali nag fa inna zikra naka fàttali tan fa dana jëriñ al muminina way gëm yi waaye nag lu mën a xew lu luñ mën a weddi weddi bul bàyyi fàttali gi ak waare gi yow daal del waare tey fàttali dégg nga uddu ila sabili rabbika bil hikma wal maw'izatil xasana ndax xol yi nga xam ne ñoom gëm yàlla mi ngi ci ñoom saa yoo fàttalee rek maa nga waare bu defee danañ jëriñoo ci waare woowu te waare wu rafet woowu dana jeexital ci seen xol kon yow del fàttali tey tey waare dégg nga ak lu mën a xew del fàttali tey waare yàlla bi mu paree ci loolu nag mu ñëw di tudd nag raaya muy objectif muy jubluwaay bi tax yàlla bind mbindeef yi yàlla mu ne wamaa xalaxtu bind al jinna jinne wala linsa ak doomu aadama illaa li ndere lu ñu jaamu ndere ñu jaamu ndere ngir ñu jaamu ndere ngir ñu jaamu ma illaa li yabuduni ndere ngir ñu jaamu nee na binduma jinneeg doomu aadama ndere ngir ñu jaamu ma kon li tax ma bind leen mooy ñu ñu jaamu ma ba maa xalatu saqalay ni ñaari way dëgër way dijj bopp yi te mooy nit ak jinne binduma leen illaa li ibadati wa ñu jaamu ma te wéetal ma waaye binduma leen laa li talabi dunia wala inhimaaki binduma leen ngir ñu sàkk àdduna wala ñuy xuusa ko nuuru ci biir àdduna topp àdduna loolu taxul ma bind leen ibnu abbas muni ila li ya'buduni sun borom mi ngi jublu li ya-, eh, yuqirru liya bil ibadati tawan aw karhan moy ñu saxalal ma ak njaamu moy ñu nangune ne man lañ wara, man lañ wara a mu neex len ak mu len ñu nangune man lañ wara a ibnu abbas neen loolu ci sun borom jublu mujahid nee na illaa li ya'rifuni illa li ya'buduni bu ko yalla waxe moy illa li ya'rifuni moy lu ñu ndare lu ñu waaw euh, dégg nga ndere ñu xam ma mooy ñu xam ma mooy ñu xam man maay kan man yàlla loolu la si yàlla jublu binduma leen lu dul ñu pour ñu xam ma lu dul pour ñu pour ñu ma euh, euh, razi mu ni lamma bayana taala xaalal mukazibiin yàlla bi mu leeralee mbiru weddikat yi mooy ca commencé ko ca lóot ba ci noox même ci mujjee tudd hmm. dégg ak waa màkk yii seen seen mbir ba mu lee ba yàlla leeree seen mbir dafa indi aay bi nag ngir leeral ñaawuk seenu jëf seen jëf mooy lan mooy weddi gi ñu weddi dégg nga biñ bàyyee jaamu yàlla te fekk ne yàlla bindu leen lu dul ñu jaamu ko yàlla bindu leen lu dul pour lu dul ñu jaamu ko moo tax yàlla bindu dem bàyyi jaamu yàlla kon moo tax yàlla indi aaya bi tudd weddi gi ñu weddi ñoom ñëpp weddi gi ñu weddi mooy pour mu wane ne ñoom li ñu def dafa ñaaw ndax dañoo bàyyi li taxoon ñu bind leen ndax li taxoon yàlla bind leen mooy ñu ñu jaamu ko raas nee na loolu aay bi maanaa bi loolu la dégg nga mhm. kon maa xalaxtu bind ma al jinne jinne wal ak doomu aadama illaa mhm. li yabuduni ndere ngir ñu jaamu ma mhm. dégg nga maa uridu namm ma minhum ci ñoom mi risqin ci wërsëg yàlla nee na doomu aadama yi ñu jaamu ma rek moo tax ma bind leen hmm. waaye bindu ma leen ngir ñu wërsëgal ma hmm. bindu ma leen ngir ñu wërsëgal seen bopp hmm. bindu ma leen ngir ñu wërsëgal keneen ndax man may maay wërsalagaa koon bi man yàlla man maay kii wërsëgalaate kon ñoom wërsëg sàkkuwuñ ko ci ñoom doomu adama yalla sàkkuwul ci wërsëg sakku ko ci sa bop sakku ko nga wutal ko keneen sàkkuwu ko nga wutal ko ko mom yalla ah, ndax wërsëg moom yàlla moo ko yor moko joxe iktisab nak dañ ko def waye dañ koy ak tawakkul kon nit ki lim wara war def rek ci aduna da koy def waye nak na xamne deug deug li tax yalla bind ko moy jaamu yalla du jël yittim yep yep yep def ko mbiru aduna jox ko aduna deeng nga hmm. wa deeng nga waxoon na ne wala tan sa nasibaka min na dunya waaye nag wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka maam li nga war def ci àdduna di nga ko def de waaye nag li tax yàlla indi la fi nag moom mooy jaamu yàlla nag loolu nag moom na nga ci nekk na nga ci nekk ba faw dégg nga ndax yàlla moom mi la fi indi li war ceew ci àdduna moom loolu moom moo ko garandi wa min daabatin fil ardi ila ala Allahi rizquha dégg nga wa ma uridu na mu ma it an yut'imuni ba ñu lexal ma waaw ma ñu ñu wërsegal ma wutuma ci ñom wërsëg wutuma ci ñom ñu jox ma luma lek lekk man yàlla waaw wutuma ci ñom ñu wërsëg ñu ñu ñu jox ñu lexal sama minde fi dégg nga wutuma ci ñoom it ñu lexal ma ndax man ku doylu la man yalla bay daaw yu mu ni yàlla day leral ne mom mbiram bokut ak mbiru sangi nit ñi ak seen jaam yi ndax tay comme arab yi daan am jaam ci misal sen jaam yi dañ leen daan liggéeyal nga am sab jam yóbbu ko sab tol mu lay bayal ba nga jox say gàtt mu lay samal ba nga jox sa marchandise mu lay jaayal kon lolu mi ngi lay wutal kom kom yalla dafa ko wax nak mom ak ñun ñun ñi nga xamne ñun minde yàlla yalla xam ne ay jam lañ ci mom suñu mbir bokkut ak mbiru jamu nit ñi ak seeni sang nit bokut la jaa la sangu nit di wut ci jaamu nitam yalla mom soxla wut lolu mom ci ay jaamam mom ak jaamu la soxla ci ay dégg nga waaw ini ana nee loolu la loolu la ci ay bi loolu la ci ay bi kon kon yalla mom lim soxla ci ay jaamam moy ñu jaamu ko rek ndax day na bind pour ñu jaamu ko mun inna allaha naka yalla hum moom arrazaqu mooy wërsala mooy wërsëga laa bi yalla moy ki wursaga laté dégg nga mu mag mi moy ki wursagal de moy ki nga xamne mo moo wursagu wërsëgu ak seeni aaju yep mo koy fajj gis nga te li yalla wax ji mu wax ni da koo ñor moo tax mu indi turam ne inna laaha ngir wax ji gën a dëgër mu feddale waat koog inna ak huwa inna dafay feddali ba pare huwa damir mun fasil la yëpp da koo indi ngir bëgg nit ñi dindi ci seen xel yi ne jàpp ne ku ci nekk yaa war a wërsëgal sa bopp wala yaa wërsëg war a wërsëgal keneen sa góor góorgóorlu moo lay wërsë may wërsëg wala sa dimbali nit mooy tax mu am wërsëg déedéet wërsëg yàllaa ko yore moo koy joxe Eh, moo tax yàlla maam dëgëral wax ji ne inna a huwa razaqu yàlla mooy wërsala sa kon bi zul quwati mooy borom kattan ji yàllaay borom kàttan gu rëy gi almatiinu koy aji dëgër ci kàttan yàlla mooy borom kàttan kattan nga xam ne ak lott du ko dab ak lompoñ du ko dab ibnu kasir mu ne yàlla day xam le ne moom yàlla amul yitte ci jaam ñi amul yitte ci kenn hmm. daal lim sàkku ci ñoom moo ñu jaam ko hmm. waaye jaam ñi ñoo am yitte ci yàlla ci seeni ñoom ñooy soxla woo yàlla ndax yàllaa leen bind te moo leen di wërsëgal ñëw na ci hadiisul qudsi yi yàlla mu ni yab na aadama yow doomu aadama bi tafarrax li ibaadati yi mooy bàyyi lépp te jaama boo ko defee am la sadraka ghina sa xol dinaa ko feesal ak koom te yéen ci boo xam ne ne al ghina nafs riis dëgg koom dëgg dëgg dëgg mooy ak doylu ci xol ci xol lay nekk mm. am na koo xam ne amul dara boo ko gisee dangay jàpp ne ñàkkul dara mm. am na koo xam ne jeexalul dara mm. boo ko gisee mbaa bu ngeen waxtaanee rek nga yërëm ko doo ko ñee kon kee dafa am doylu xol te kee da koo amut yàlla nag nee na boo bàyyee lépp mm-hmm. te man jubli ci jaamu ma mm-hmm. ma defal la loolu mm-hmm. dégg nga wa illaa tafaal boo deful loolu malatu sadraka suqlan ma feesal sa xol ay soxla fekkee da ngaa jublu àdduna rek ba won ginnaaw jaamu yàlla yow àdduna rek mooy sa yitte say xëy say ngoon say guddi say bëccëg lépp mbiru àdduna la yàlla nee na sa xol danaa ko feesal ak ay soxla sa xol fees dell ak soxla wala a sudda faqraka te du ma mës a mëdd sa ñàkk mooy du ma la may mukk nga am ndax man maay wërsëragaa kon bi moo tax kon yàlla pour ñu wut wërsëg danañ yëngatu nag ndax loolu mooy aaday nit mooy sunna yàlla ci nit mooy nit dafa yëngatu waaye après mu am loolu ci yàlla la aju yàlla mooy wërsëragaa kon yëngatu yi buñ ko topp topp topp ba tax ñu fàtte suñu diggante ak suñu borom ak jaamu gi ñu ko war a jaam dégg nga yàlla mu ne fa inna lillazina naka ñeel na ña nga xam ne zalamoo tooñ nañ mooy ñu weddi nii rek di waa màkk yi zanuban cër ci mbugal misla zanubi ashaabihim ni ki cëru mbugalu seen gaayu weddi woon yeleen jiitu gis nga ñu njëkk ña muy waa aadiyaak waa samudiyaak ñoo ñëpp nitu Ibrahima yaag nitu Nuuhan yaag ñooñu nga xam ne dañoo weddi woon cëru mbugal bañ am te yowmal xiyaam nee na ñii tamit am nañ cër boobu de waa màkk yi nga xam ne dañoo weddi am nañ cër boobu inna lillazina naka ñeel na nga xam ne zalamoo tooñ nañ dañoo weddi yàlla zanoo ban cëru mbugal mbugal lu koy waral mooy baakaar baakaar mooy ban cëru mbugal la zunubi asaabihim ni ki cëru mbugalub seen gaay leen jiitu woon dégg hmm. nga mu ni yéen gaa yi nga xamne da ngeen weddi hmm. ngeen weddi yen tim sa salam xam leen ne am ngeen ci rum bugal hmm. niki ci rum ña leen jitu won nga xamne alak alag nañ leen ñu melni nit ya ak ñu melni ni waa ak ñu melni wa samud samut seen cër ngi leen di xaar seen rum bugal mi ngi leen di xaar kon nak fala yastaajiluuna buñu sako yakamti de toujours ñaan yent ayana din la kañ la bis dajal fayo kañ la Ah, yàlla nee na bu ñu yàkkamti dañ xam ne seen cër mu ngi leen di xaar kon bu ñu yàkkamti sama mbugal wax fi innahu waaxiwoon la maxaalata in aajilan aw aajilan dana ñëw de te jaas moo xam mu gaaw wala mu yéex waaye danaa dajeeg ñoom fa waylun xurum mbugal wuy tàkk te du fay lillazina ñeel na ña nga xam ne kafaroo weddi nañ min yawmihim ci seen bis allazi bis ba nga xam ne yuaduna dëxaleef na leen ko de yàlla nee na mbugal muy tàkk te du fay billaahi waajal naa ko ñi nga xam ne dañoo weddi bis boobu nga xam ne dana ñëw ñu wax leen ne bis ba dana ñëw ñoom ñu weddi ko te mooy yomal xiyaam ñen ñoo ko weddi mooy waa màkk yi moo tax ñi laaj yonent bi rek di ko ñaawal naan ko ayaana yowmu din dañ koy laaj gëmuñ ko de dañ koy ñaawalaal rek kañ la yàlla di fay nag kañ la yàlla di fay xanaa yàlla ci seen bis allazi ba nga xam ne yu'aduna dëxaleef na leen ko kay mm. daa ni foofu la saar bi jeexee mën na ñëw foofu والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته